dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyando jàngoroy coronavirus ba léegi ma ngi wéy di jàbbaajo ngi ci réewum Sénégal ndax lu ëpp ñett junni ci ay nit amee nañu wopp ji lu toll ci fanweer ak juróom benn maanaam daat nañuy faatu ci woppi coronavirus yéenekaay groupe promo consulting bi di réew mi ko di jëm moo xëy di ñu ko xamal njiitu réew mi di président Macky Sall moom li mu xam te xamal ko askanu Sénégal mooy nañu dund ak woppi coronavirus loole nag bàyyi Barthélémy Dias di Jean Paul ci réew mi ko di jëm nee na loole mënu koo dégg te lànk ba kandaar nee na du dund ak li nga xam ne mooy woppi coronavirus ndax maanaam nekk ci réew mi di bañ a joxe loxo di bañ a akolaatante loolee ci boppam maanaam xel munu koo nangu te loolee munuñu di wéy di dund ak moom ñi nga xam ne ay borom xam-xam lañ maanaam di ay chercheur di ay médecin di ay biologiste maanaam nañu andi solution ci mbir mi ndax am na loo xamante ni askanu Sénégal munuñoo wéy di ko dund ci réew mi moom Jean-Paul Dias ci émission grand oral bi ñu ko laajee na ko woppi coronavirus ndax mbirum yàlla sunu borom la la xam yaa ngi fooye sam xel mbir mi ci laboratoire yi la jóge wër adduna bi sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des mourides la mu xamle nee na coronavirus ku ko wax dara tooñ ko maanaam yàlla sunu borom moo ko fi indi sàkk ko ni mu sàkkee doomu aadama yéen a kaay gii mu ñu xamal la ñu en tout cas li am ba des état d'urgence beeg couvre-feu bi bëri na ñoo xamante ni mënatuñ koo dégg am na ñoo xam ne mënatuñ ko nangu maanaam gàllankoor yi mu indi ci réew mi bëri na ñaxtu yi fépp lay balee yéen a ñu fekk fa Moustapha la mu bi ak couvre-feu bi bu ñu waxantee dëgg moo amul njariñ ci réew mi te dañ ko fee war a jëlee yéen kaay gi di OMS organisation mondiale de la santé moom dafa bëgg ñu jële fi chloroquine némoniwaquine maanaam jëfandikoo gi nga xam ne médecin yu Sénégal doon nañu ko jëfandoo chloroquine waa OMS dañoo bëgg mu dakk journal bi nee na moo taxit coow li nee na si coppaye nguurug Sénégal ñoom dañu ne pat pataaral ci mbir mi di jëraawul la mu xam le nee na chloroquine maanaam li muy sauvé ci ay bakkan kenn xamul nu mu toll yéen kaay di réew mi quotidien mu ñu ñu Sénégalais yi xam ne ñoo nekk bitim réew réew ba ñu leen diggee ay milliards ñoom kontaanoon nañu loola waaye nag bëri na ay gox ci Italie ba léegi nii gisaguñu lenn loo xamante ni maanaam ma ngay niroo ab xaalis boo xamante ni ci Sénégal lay jugee ba pare boole kook ay laaj yu bëri yoo xam ne maanaam ñoo ngi koy samp ma ngi ci yéenekaay groupe promo consulting bii di réew mi quotidien Assane Samb moo ko xëy bind yéenekaay gi du am mu ñu xamal ñu Serigne Fallou Jumaada ci Korité 2020 yi def na ab xutba a gëmuloo tàmmuñu di wax dëgg askan wi maanaam ñi nga xam ne ñoo yëre réew mi dañoo tàmm wax lu dul dëgg ba bu ñuy wax dëgg sax askan wi dañuy jàpp ne du dëgg yéen kaay gii de la témoin mu ñu xamal naan ñu coronavirus ak korite 2020 yi bëri na ay xutba yoo xamante ni doon na fa jolle moo xam Tuuba la moo xam Yoof la moo xam Léona Ñaseen la yéen kaay gii de la sa mu ñu xamal naan ñu lu jëm ci décret bi nga xamante ni ñoo ngi koy wax ne Macky Sall moo ko signé ngir nag tabbu ñi nga xam ne ay jamono jiite woon nañ conseil économique social environnemental ñu nekk ay président honoraire loole nag coow la loo ni judd na ci réew mi yéen a kaay gii di réew mi quotidien nee na Thierno Alassane Sall Abdoul Mbaye Mamadou Lamine Diallo nee nañu mbir mi dañu koy jël yóbbu ko fa mbaxana doone benn journal bi du source a mu ñu xamal nañu ñi nga xam ne ñoom lañ dénk réew mi ak opposition bi kan lañ yàpp askanu Sénégal jamono ji ñoo ngi ci coono jàngoroy coronavirus di gën di law ci réew mi yooyu politique yi nekk di piicoo ak mbaaloo ci loo xamante ni amul benn njariñ loole nag maanaam nag yàpp askan wi la yéen a kaay gii di l'observateur mu xëy di ñu xamal nañu lu jëm ci wàllum négociation bi doon wax ci autoroute à bi loole nag njiitu réew mi di Macky Sall mer na ba maara de tali te waa Eiffage ñoo ko merloo yéen kaay gii di Les Échos xëy ci ay révélation yu doy waar yoo xamante ni Makhtar Cissé daana kay def ci Senelec ba nga xamante ni nee nañu suba lay def passation de service ak Pape Demba Bitèye jël na lu toll si ñaar ci ay milliards jox ko waa Akilee li nga xam ne nag moo yàqal Makhtar Cissé moom nag dafa amoon ab candidat maanaam dafa wuutoon koo xamante ni moom la bëgg mu daal di koy wuutu ca Senelec lajjite gi am ci ab candidat am bu ñu indi Pape Demba Bitèye loole moo ko jural ay ñool ñol yéen a kaay di réew mi quotidien ak Vox Populi ak Le Témoin mu xëy yóbbu ñu diwaanu cees mu ñu xamal laan ñu benn waay bu tudd Fallou Diop moom moo taal baayam baayam Cheikh Diop la tuddoon journal bi nee na sa noot guy jamaa la xewee baay ji nag ba ñu ko taali dañu ko jël rawale ko ci hôpital Amadou Sakhir njégéen bu Thiès waaye nag dafa mujjee ñàkk bakkanam moom Fallou Diop mi def ñaaw téef googe teg nañu ko loxo Libération nee na enquêteurs yi bi ñu ko laajee na ko Fallou Diop lan moo tax nga taal sa baay la mu xamle nee na baayam danoon di ko dóor suba ngoon guddeeg bëccëg yamu fa nee na baayam da doon tuumaal yaayam na day njaaloo journal bi di libération nee na en tout cas li amba des daal Cheikh Diop moomu nga xamante ni taal nañ ko bis biñ ko taalee dafa takkoonub jabar mu war a ñëw ci kër gi yéen a kaay gii di sunu làmm dikk ci Balla Gaye 2 mi nga xamante ni bu passé roi des arènes gi nga xamante ni nekk na ko ci Sénégal maanaam roi des face to face ndax Balla Gaye ku mu janool maanaam dina la ruube andi la ay ñol-ñol ba pare yàkk la musiba ak mbelengaan def na ko Modou Lo def ko Tyson def ko Yékini Tapha Tine moom daf ko tudde woon ab Camon